te kenn ñu bor maanaam tey ji da ngay dégg coow li ñu naan bor bi dafa bëri dafa bëri Sénégal li mu am ci bor dafa bëri mais période boobu rek mooy période boo xam ne gestion bi jaaroon na yoon ba nga xam ne dettu Sénégal da doon da doon wàññeeku ah, te baaluñu woon bor yeneen wàññeeku ñu fi am yëpp ay wàññeeku yoo xam ne dañ ñu ko baal. donc liggéey moo liggéeyam moo indi woon loolu ànd si woon ak le président Abdoulaye donc mu beneen bi dafa nekk maire de Thiès ñu gis. si que neuf mois. Hmm. mu transformer ville de Thiès. lu war fa organiser de l'indépendance travaux y commencé ce juillet 2003 avril 2004 le chantier yi ci ëppoon solo pare na. Nous avons fait liggéey bu am solo Nous avons woon lu ëpp Nous avons chantier. ñu liggéey ko liggéey bu gaaw liggéey boo xam dañ ko tegoon ci yoon. transformé wu dafa am anecdote bu ma ci marqué. Hmm. dafa dama mus a dégg Tour de France. Euh, ay équipe Fran français yi ñëwoon ci Tour de France 2004. Hmm. ba ñu ñëwee ñu dugg Thiès ñuy laajte bi ban dëkk la ñu ne leen fii jaaroon ngeen fi daaw 2003 Tour de France 2003 ñu ne la Thiès bii dëkk bii jaaroon na fi ñu ne ñoom moom mosuñu jaar fi ñu ne leen déedéet jaar ngeen fi. diggante 2003 ak 2004. li ñu liggéey dëkk ba mu mel ni ñu ne ah kii liggéey lii de kon xanaa da ngeen ko war a jox seen réew mi mu defar ko. mu defar wala ay équipe du Tour de France cycliste Tour de France. Uh-huh. ñu ñëwoon Tour du Sénégal ay français. ñoo ko ñoo ko mbir mi da leen impressionné parce que benn at xàmmeetuñu Thiès. xàmmeetuñu Thiès. waaw dañuy ñëw euh, Matar Sey kon mbokk donc loolu pour wax lan la. pour wax ne mooy candidat bi nga xam ne sénégalais yi xam nañu lu mu mun.

Euh, le président Macky Sall a gagné au premier tour kenn xaarul woon loolu ñun bi ñu doon def campagne dañoo foogoon deuxième tour de nom même jour élection résultat yi njëkk yi su bi muy qu'ils hmm. sont nañ deuxième tour bi dafa commencé woon leer waaye dem nañu après bi PV yi di di wàcc ñu gis euh, les résultats yoo ça donne ça donne 58%. 58% bon. bëgguñu woon dugg si yenn contentieux yi bëgguñu woon dugg si yenn yi parce que aussi dafa am beneen dimension si président Idrissa Seck moom mooy bi muy ànd ak président Ablaye Wade dañu waxoon ne on ne marchera pas sur des cadavres pour entrer au palais donc 2019 aussi si dynamique boobu la nekk. ci dynamique bu muy nekk mooy quoi ak nu mu résultat yi demee nii xale yi toog di ko xaar bu buntu këram ne ko yow lu ñu déglu pour nga jox ñu ndigal moo ne leen déet. Hmm. ne brûlez pas mon pays parce que réew soo ko bëggee jiite. soo ko bëggee doo ko def dóom. Ah. jour boobu loolu la je baaba am na si suñu jeunes yi koo xam ñaar ñoo xam ne si seen tour la jaar si guddi googu ne leen diw ak diw ne brûlez pas notre pays. très bien kon bokki comme niñ ko waxé légui rek Matar sey moo nek suñu gan ci DBC Soir ñi wara a waxtaan moom si actualité ci réew mi dañuy njëkkee position parti réew mi ci mim réew opposition là wala parti pouvoir la wala société civile on a nga ni ni ñun les chefs de l'opposition xanaa. <laughs> ah déedéet man dama jaaxle parce que dañuy wax réew mi <laughs> fi teg fii. yeewee mais gisuñu daal xaw réew ban ban position lañ nek Seck mooy chef de l'opposition. ñun ñooy chef de l'opposition ñun ñooy chef de l'opposition. kan mo lañ ko fal. Euh, Sénégalais yi. ah bon dañu dem élection présidentielle 2019 mille le président Macky Sall am 58% huit pour ñu président de la république. waaw ah. ñun ñu top ci am 20% donc bonnet premier moi, président de la république ça veut dire que deuxième. moi, chef de l'opposition. Les ah, mais on après député mais on est dans un régime présidentiel. D'accord. donc si vous avez une élection présidentielle chef de l'opposition président Idriss Seck la. di gis né opposition bi dem war na am benn candidat tay comme chef de l'opposition bi yéen rek ko incarné mais waaw fit waxuñ ko coalition bu bees bi coalition bi di soutien Ousmane Sonko ses alliés Sonko ñu waxuñ ko duñ bolé sen wax ci Ousmane ci Idriss Seck ñom dal ci camp présidentiel lañ leen boole. loolu daal looy xam nga non mënuñu ñu ñu bolé ci camp présidentiel xam nga xam nga ñu ñu. candidat bu gaay yi gëmul daal ñu ne bon day liggéeyal makki kii day. xaaral amul ba non non dañuy joom dafa am ay njuumte yu ñuy def. acca de l'élection présidentielle 2019, nous avons un dialogue national. Nous avons dialogué pendant 14 mois. 14 mois 14 mois. 14 ou 16 mois, je ne sais plus exactement. Mais, en ben point, bo, bo, un point d'achoppement, je suis chef de l'opposition. Nous sommes en opposition, d'accord, nous sommes chef de l'opposition, mais nous avons beaucoup de gens qui nous ont le président Idrissak. Hmm. Donc, point y nous sommes en point nan. opposition parlementaire lañ ko war a jox ñii naan nañ d'accord nañ ci deuxième bi moo ko war a nekk mais dañuy bàyyi ba 2024 ñu soog ko appliquer donc ci loolu la ñu nekkoon si lool nag si la am waxtaan am diggante président yi de ça ak ñu xool comment régler la situation par Covid dugg. Mm-hmm. bi Covid duggee ñu xam ne kat Covid bii fu mu jëm kenn xamul instant boobu vraiment nit ñi jaaxle woon nañu et comme nit ñi jaaxle na ñun Covid xamuñu bu ñëwee Sénégal nan lay demee dem Chine. ak yooyu def na fa li mu jotoon a dugg Sénégal commencé woon am na ay personnalité yu amoon solo Sénégal yu si ñàkk seen àdduna nit ñi jaaxle économie bi nar a nërmeelu wax président Idrissa Seck ne ak président Macky Sall ne heure bi du heure opposante jogante hmm. ay pouvoir ak majorité opposition amatul solo fi majorité opposition ça n'a plus de sens période du Covid bi hmm. donc nañu boole suñuy doole ñu xeexaloo li def face ba ñu jàll jàllalee bu ñu jàllalee nag après ku si nekk nga jëlaat si yoon dem. dem li mais mais du war a moo demoon ñu jàll Covid bi. waaw euh, guerre Ukraine dugg ñu gis lu mu indi woon si njëgu njëg yi déjà ak euh, yokk bi njëg yi yokkoon. Hmm. ñu war a jàkk def euh, jël ay mesures sur loolu liggéey bi nga xam ni njëg yooyu du metti trop ci Sénégalais yi. Hmm. malgré que finalement même ak li si def yëpp metti woon na parce que seen gouvernement presque ñaar deux ans def na si presque mille six cent milliards. donc ñu ñu ñu nekk si loolu ba deux mille vingt trois élection jegewaat na nañu waxan dañ ko waxantee woon ba ñuy dugg. mooy bu ñu demee ba ku nekk war a dem wuti ku nekk dem wuti donc génnaan nañ dem wuti jarul. ngeen génnaan ñaari yoon. waaw ndax yéen a ko fal 2012. ñëw ànd ak moom ci Covid bi. bàyyiwaat ko est-ce que génn génnaat yooyu. Sénégal yi duñu ko. am benn jugement génn yi bokkul. ah bokkul. bokkul ah, parce que 2012. désaccord dafa amoon 2013. Hmm. désaccord dafa am dañu dawal at. mais yéen a ko fal 2012. waaw dañoo ñun ñoo ko fal parce que. d'accord ah, euh, d'accord nañ ci. parce que 2012. Hmm. le président Idrissa Seck dafa déclaré woon mu ne suñu demee deuxième tour candidat opposition bi lay jàppale donc si vous avez deuxième tour parce que c'était logique mënoo le le président Abdoulaye a amul droit troisième mandat ngay deuxième tour Donc deuxième tour qui est ci opposants yi président Macky Sall le deuxième le président de au point e. président parce que man sama opposant donc dama lay jàppale loolu so ñewul woon it dama lay jàppale ne ko it beneen bi euh, fauteuil présidentiel lañu ñu wax waxuñu canapé présidentiel maanaam canapé dañ koy bok mais fauteuil présidentiel kenn du ko bokk donc ku bëgg nga président yi da koy bàyyi afia mu liké hmm. donc donc soutien bi sans condition lay nekk du ñu négocier ak yow naan la jox ñu temps de ministre tant de ñu sa déedéet sans condition parce que c'est Sénégal dañ la fal te président de la République il a un fauteuil présidentiel donc dañ lay may sa affaire nga liggéey donc ñun dinañ la jàppale sans condition ñi candidat yi président Macky Sall seeti woon yëpp président de Seck rek moo wax soutien sans condition laaju ma la dara xaw ma loo may jox boo gagner du ma la wax nga dig ma dara dinañ la jàppale parce que loolu la ñu waxoon ak Sénégal yi ñu jàppale ko bi ñu demee ñu dowal un an président Idrissa gis na ni doon djublo ci soxla askan wi yeexoon na mu dem TFM groupe TFM ñu invité ko invité de la rédaction mu ne nañu baral djégo yi si si soxla askan wi nañu baral djégo yi ci soxla askan wi parce que doxagul loolu indi woon compréhension ñoom comprendre uñ ko ñu ne ñu da ngeen di euh, am ay ñu nekk ci gouvernement bi ñu génn def ni dañuy da ngeen di nekk ci biir noppi mm-hmm. mbaa ngeen génn ñu ne ñun non du ñu nekk foo xam ne dañu naa ñu du ngeen wax seen xalaat dëgg suñu xalaat mooy que ni muy doxee nii gaawul dafa yeex mm-hmm. si lañu ñu ñun génnee ci coalition Benno Bokk Yaakaar génn si gouvernement bi ñuy génn on avait amoon nañ ñaari ministre mm-hmm. ak benn directeur de de société mais pour won ne ñun ak te instant boobu yeneen alliés yi joxoon nañ leen ay institution ça veut dire président de se bu fa toogoon dinañ ko jox instru institution mu jiite. mais ça veut dire que ñun intérêt askan ni moo ñu gënal suñuy intérêt bopp mais ñu ñu ne donc comme ñun ni ñu ko gisee gisee waleen ko noonu on nous préférons nous retirer. di retirer di retirer wu léegi. Mhm. mais dañu retirer mais yàlla daf ñu jox dëgg finalement parce que dañoo dem 3 4 mois après. premier ministre ba fa nekkoon Abdoul mbay ak le ministre de finance bi ñu bi nga xam ne président daf na woon ay banquier la ñu dañuy am réflexe téye xaalis bañ ko dépenser. Hmm. Euh, président Macky Sall daf leen fa jëlee indi indi Mimi Touré li yàlla dogal Mimi Touré indi slogan boo xam ne mooy accélérer la cadence. <laughs> accélérer la cadence la cadence Elmat. Ah. bu ma la waxoon teg ko si wolof noo koy tekkee. foog naa de mooy gaaw gaaw a gaaw. mooy mooy li président Idrissa Seck waxoon trois mois avant TFM groupe GFM. baral jéego yi. Hmm. si sox